soxna yi moom nouveauté jasneer yi rek lay sol moom moom moom Cheikh Bara vraiment hmm. ah rafet na trop très joli man ñun xam nañ ko yow bi nga sol la nouveauté jasneer waaw nouveauté la la kañ man bi nga sol lan la <laughs> hmm. ancienneté <laughs> yow kañ sa bos du nouveauté man ak yow ñoom yaa ma njëkk a jënd <laughs> ba ngay jënd jëndaguma sa baax na régi jox leen yaayu imaam yi tey nga indeeti kàddu yu am solo ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké ibnu Xaadim Rasul ni ko waxee noonu la ajaratu beti duñ ci xuus lu yàgg dañuy dem mhm. rek euh, régi dem euh, jëli ci élément bi ci kàddu yooyu daal di ñëwaat ci plateau bi asalaamualeykum tey ñu baaxe leen kàddu yu am solo yii nga xamante ni ñu ngi ko jëlee ci Baay Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu jagleel ko taalibe yi waaye képp ko dib jullit sëriñ bi nee na kaw suuf mën naa nangu dul dëgg biir suuf lu dul dëgg du fa dox teg ci ne tappale ak bari pexe ak jubal moo ko gën dolleet ci jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ ba am li mu bëgg te ku dul xuloo du xeex du def mukk lu ñu koy yeddee kàddu yaa ngokk di loo xam ne nit bu ko saxoo mën na laa dimbali bu baax a baax ci sa nekkin ak doomu aadama yi mu ngoog euh, kàddu yooyu la indi tey ji ajaratu euh, mhm. di euh, kàddu yoo xam te ni ñu ngi ko jëlee mhm. ci moom kilifa gu tedd googu radiallahu anhu di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñuy fàttali na rek mu ngi gane sa àddina atum 1914 fële sa Jurbel di doom ci ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul nekk nag moom moo nekk ñaareelu kon xalif ba gannaaw bi nga xam ni moom moo daal di succédé ki nga xam te ni moom mooy magam moom moo succédé kon magam ci euh, di euh, ki nga xam ni moom mooy euh, Serigne Fallou Mbacké ci atum 1968 ñetteelu xalif voilà maa ngi jum ñetteelu xalif moom moo succédé kon ki nga xam te ni moom mooy Serigne fàllu Mbacké ci atum 1968 mu daal di génn àddina atum 1989 ca Touba ci dëkk bu sell ba kàddu yooyu nag ki ñu ko yaatalal tey ji di ki nga xam ne moom mooy oustaz Malick Ndiaye ci kër gi la bokk dañuy dem teewlu ko ñëwaat asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu mbokku téléspectateuru Walfu TV waaye di ñëw di nuyu équipe bu Talku Show di nuyu ku ci mel ne soxna Biti Mbuub waaye sox alxaaji Saa Njoogu waaye di nuyu sëriñ Baara Ndiaye waaye di nuyu soxna Fatmata Sëy di leen nuyu si nuyu lislaam bi nga xam ne yàlla jox nañu ko mu làmb jàmm ak yërmande ak barke ah, di nuyu nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñépp di ñëw si benn waxtaan boo xam ne ah, du yàgg xam naa dans quatre minutes rekk ñu am luñ ci jàngale jàngale boobu mu ngi tudd kàddu mag ñi may wax ne yu mel ni am na solo ndax damay gis ñu dugal lu ci mel ni kàddu mag ñi waaye léeg-léeg ma gis ñu dugal lu mel ne ëttu këru diine ji ñuy wax ëttu këru diine ji bañ a wax ëttu këru diine yi ndax diine ji benn la waaye ëttu këru diine ji damay gis nag wàll fu dañuy indi yu mel noonu lu si mel ëttu këru diine ji waaye kàddu mag ñi yooyu nag dafa am solo ndax mag ñi ñooñu mën a wan yoon bi nga xam ne war nañ see jaar ba mën a dund tey suñu dund ñoŋ suñu dund jaar si yoon waaye jaar si diine lislaam moo tax tey ñu ñëw war leen a defal kàddu mag ñi mu nekk rubrique boo xam ne euh, day daw si émission bi ñuy wax Talku soow waaye di nuyu ñëpp tey nag ñi ngi jël benn mag boo xam ne bu ñu ko waxee kenn du ko présenté ndax bokk na si njabootu euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul di ku tedd kooku muy kan Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dénkaane bi mu dénkaane woon si ay kàddoom bokk na si kaw suuf moom lu dul dëgg mën na koo nangu kaw suuf mën naa nangu lu dul dëgg waaye biir suuf lu dul dëgg du fa dox waaye waaye jeunesse bi yéen laay waxal su ngeen ni sàkkooti dara sàkkoo leen ko ak jàmm waaye seen teeyug bakkan bu leen kenn dugal si li nga xam ne moom mooy euh, ak jubadi wala mu dugal leen si ay finna xam leen ne da ngeen am ay waajur te seen waajur yooyu dafa am lu ñuy xaar si yéen kon yéen la sëñ Abdul Ahad Mbàkke di wax ndax ñi ngi jëm si ay élection jëm si a def nañu nii wala waxee nañu nii ànd ak leen tekk ak teey ngeen jéem a ànd ak seen ngor sàkku li ngeen bëgg si teeyug bakkan kon wax ak naag yéen bu leen kenn dugal si dara yàlla nee na al yawma naxtimu ala afwaahim bis dina ñëw boo duggee si biir suuf damay tëj li nga xam ne moom mooy gémmiñ waaye wax loo li nga xam ne moom mooy loxo seedeloo ay tànk waaye loxo dafa wax dana dana wax man maa jëloon jox gémmiñ mu lekk waaye biir dana wax ne man maa recevoir oon waaye tànk dina wax man maa demoon waaye bën ne man maa xooloon kon foofu lu leer rek moo fa am lu lëndam du am beneen bi dégg nga si fan yi paase ku jël nit voilà mu ngoog euh, mhm. di kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko nangoo ci euh, ki nga xam te ni moom mooy oustaz Malick Ndiaye euh, moom ci kër gi la bokk ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon ci ponk yu am solo xam naa ni temps bi moom moo ko mate moo tax kon élément bi yeggul waaye nag daal dina rek jot indi ñetti kàddu yooyu nga xam te ni ñu ngi ko nangoo ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xaadimu euh, ibnu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñu ñëw ci kàddu yooyu nga xam te ni ñett la jëm ci ab ndénkaane euh, ci bi ko jiitu bi ci topp ak euh, lépp loolu loo xam ni jàngale la yaakaar naa ne ñu ñi ci plateau bi yëpp déglu nañu kàddu yooyu ba lu bari jëlee nañ ko ci euh, lu ni mel damay jox kàddu gi euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mu ñëw ci euh, kàddu yooyu nga xam te ne moom la jot a daal di indi oustaz Malick Ndiaye gis nga lim ci jot yaatal léegi léegi. Hmm. yow tamit kàddu yi nan nga ko gisee. waaw am na solo ndax kàddu la yoo xam ne kàddu yu jàngale la ak solo te moom sëñ Abdou Lahad daa bokk ci sunu magu réew yi nga xamante ne. Euh, mag ñaa leen defar bañ mujj far bokk ci mag ñi ndax euh, ku mel ni Cheikh El Hadj Ibrahima Niass euh, tey kuy wàññi mag ñi boo ko ci njëkkewut doo ko ca mujj moom te magi réew mee ko defar mm-hmm. ku mel ne alxaaji Maalik ak sëñ tuubaak ak ñoom ñëpp buñ nee sax magi réew mi rek ñun dañuy tàmbalee ca ñooña mm-hmm. waaye ñoom ñëpp li nekkoon ci seenub dënn ci làngu arab ak alxuraan ak xam-xam yëpp kenn ku nekk sa ëtt booy jur nga ko jànge mm-hmm. kon diine yi lislaam dafa yàgg Sénégal ba noppi yàgg nekk loo xamante ne euh, ñi koy taxawee dañuy nekk ay jàngalekat yoo xam ne ñoo raw savant yi ci àdduna bi yëpp sëñ Abdou mii nag dafa bokk ci savant yi mooy borom xam-xam yi nga xamante ne seeni wax day am xikma dafa wax ne mu ne borom pexe yi mm-hmm. maanaam euh, ci kaw suuf la yem mm-hmm. waaye biir suuf nag maanaam pexe demu fa ndax kaw suuf moom ay pexe nit nga ko seqal te nit yàlla da koo bind ci kumpa mhm. fii ne amul kenn ci ñun koo xam ne mën ngaa wa mën ngaa désigner ne su ma wàccee ci suuf nii ci escalier yi taxaw ci bunt bi rek lii lii laay gis kenn mënu koo xam mhm. maanaam boo wàccoon nii rek li ngay gis mënoo koo xam nit la yàlla bind mu am kumpa kumpa goo xamante ne daanaka léppam kumpa la mhm. télévision yi ñuy seetaan sax ay kumpa yu metti yu ñuy dal ñu ñuy indil ay leeral ci kumpa yi moo tax ñi tegal télé ñi di ko xool mm-hmm. téléphone bii ngay yor kumpa yi li la sori rek la lay indil mm-hmm. ba ci montre bi ngay takk ba ci làmb yi ngay sem seetaani sax dañ na la diw ak diw dañuy bëre nga am kumpay kuy daan wala diw ak diw ñooy football nga am kumpay nga kuy jël coupe du monde bi moo tax nit ñëpp di ci teg bët nit moom daanaka léppam kumpa la umpale googu doomu aadama umpale mm-hmm. moo tax jëflanteeg moom di ko nax mën a nekk waaye nag loolu mbirum doomu aadama la waaye soo xasee ba jóg ci kaw suuf nag mbirum malaayika la ak mbirum suñ borom mhm. ñooñu moom du ñu ñuy nax mhm. mbir mu nekk na mel la ko la na la tudd inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin mhm. du sànk fay ko nit lu ëpp waaye nag du du du du du yàq mbirum kiin wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayri tajidu indallahi huwa xayrun wa ahsanu ajran noonu la demee Bob Marley nag nee na nax nit ci benn jamono mën mhm. naa nekk waaye nax nit ñëpp ci jamono yëpp. mënta nekk. Mhm. noonu la demee su ko defee sëñ du Lahat nag dafa nekkoon koo xam ne nit ko xekk ma la. Mhm. am na ku mas a ñëw ci moom jub ko di ko feccal. mu jékki-jékki di ko xool ba yàgg mu ne ko boo amee ñetti fan yi bàmmeel di nga xam doo xam mag du fo. lépp ci kàddu lépp ci kàddoom. gis nga ko mu ne ko boo amee bam boo ci kaw suuf man nga fay nekk di fecc. waaye bis boo dee ba am ñetti fan ci bàmmeel di nga xam ne mag du fo. loolu lépp dafa am euh, yu mu doon jàngale mu nekkoon mhm. koo xam ne daal doomi sëriñ Touba la ginnaaw bi fi Cheikh Ahmadou Bamba jógee mhm. euh, Serigne Moudou Moustapha wuutu ko bi fi Serigne Moudou Moustapha jógee sëriñ Fallou wuutu ko en 1968 mhm. ci la ci Serigne Abdoulahat mii jël xilaafa gi yor ko ba 1989 ci la ko jox Serigne Abdou xaadir suñ Abdou xaadir yor ko jógee ci jox ko Serigne Saliou Mbacké noonu la demee kon kooku mhm. mooy Serigne Abdou Lahad Mbacké macha allah Cheikh Bara nga ñëw ci ponk bu mujj bu njëkk bi nga xam ne ni oh. moom la ñu indi ci kàddu yi am ñaareelu ponk bi xam naa ma koy bàyyeek euh, suwaay bu jóp jëm ci li nga xam ne moo di wàllum euh, jubal ndax nag nee na tappale ak euh, bari pexe jubal moom moo ko gën suwaay bu jóp kàddu yooyu nan nga koy gisee ak noo koy tasaare waa jërëjëf Fatimata Sey Ndir ci mhm. kàddu mag gi nga indeeti mhm. muy kenn ci mag ñi nga xam ni mag la mu njariñ réew mi ci ak dundam waaye ci ak wuuteem mhm. njariñ moom bu demee ba yam ci ki koy dund moom kese tuddul njariñ balaa moo doon njariñ tey jariñe day fekk nit ki bi muy dund mu nekk njariñ waaye su mhm. génnee àddina itam njariñam di wéy mhm. loolu nag sëriñ Abdul Ahad Mbacke mi nga indi da def lu rëy rëy nga xam ne saa yoo duggee jumaay saa yoo duggee Touba nga gis lu bëri lu mu fa def ba léegi loola day wéy waaye nga indi ci loo xam ne nag sëriñ Abdul Ahad da ciy joué lu ama am solo rawatina ci dëkk Touba ci wàllu jubal ak dëggal ba tax na mhm. ci ayam lu waaye masaan di def tegoon ko ci sa bakkan wala tegoon ko ci xalifa bi ma jamonoonteeloon dafa dafa daa noppi woon wala li mu doon mhm. gëstu bariwul mhm. saa njóogu daf koy faral di wax mbooloo moo gis ñu toog wala équipe bu ànd rek am na lu yàlla def ca ku ci nekk kii dafa tàng kii dafa sedd kii dafa mën a négocier kii dafa mën a kii dafa kii dafa mën a xalifa yi sëñ nag ku ci nekk am lu yàlla defoon ci yow waaye mu amoon ci koo xam ne nag eh, yàlla dañu woon ci ayam ci la lu baree bari di yeewoo maanaam eh, bi sama benn xaritu eh, taalibe seex moom ma koy tooñee naan ma yéen murid yi sëñ Fallou leen yàq ndax sëriñ Fallou ci yërmande ga ca tabe gaag yu baree bari waaye sëriñ Abdoul Ahad Mbacké bi mu ñëwee lu bari daf ko dolliwaat ba nit ki nga xam ne dafa toogoon tuubaa mm-hmm. toppoon yërmande xalifa ga fa nekkoon wala noppeem wala ak yu bareem tax na bi sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñëwee dafa jubbantiku sëriñ Baara mi ngi wax léegi yu bari li mu wax ci bàmmeel. Mm-hmm. dafa doon faral di wax itamit Euh, ci nit ki nga xam ne dafay dem asamaan ak a ñëw euh, koo xam ne ñaan borom yi mbir la day dem ak a ñëw mu ne ko demit fii nga ñuy fekk mm-hmm. kaala sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ni balaa nekk ci mbagg day njëkk ci ndigg ba pare soo mhm. bëggee mu jariñ la moo tax am na booy yoo xam dañuy ne ci dëkk bi yenn saa yi euh, teel a jël kaala gi lool gàcc ko mhm. ci loos yi mhm. te fekk kaala ci ndigg la war a njëkke na nag kaala bala nga koo gàcc ci loos da nga koy yeew ci ndigg ba pare liggéey su safee ci ndigg ci ndigg ba nga liggéey ba pare buy ñëw ci loos yi day fekk ni booba am nga cër boo am ba pare <laughs> euh, mu nekk nit koo xam ne itamit euh, ku bàyyi woon xel dëkkub Serigne Touba bi la ba mu jaraloon ko bu bari lu bari nga xam ne discours bi mu def bu siiw lool nga xam ne nee na lépp lu nit war a def mu jaral la ko pour nga yàq dëkk bi dina ma ko jaral pour ma sàmm dëkk bi. Mhm. loolu nag loolu la nekkee ba ni mu fi jógee. Mhm. Euh, ba ni ko euh, ni fi doomam ji nekkee Serigne Sidi moom Serigne Abdou Ahad ñu ngi koy nuyu bu baax. Mhm. Euh, ci noonu la nekkee ca dëkk ba. xam kon du bu ñu nee Serigne Sidi lañ dénk Touba ci lu baree bari nga xam ne daf koy doxal. loolu du hasard. yal na yàlla sàmm njabootam. gi mu fi bàyyi te Serigne Abdou Ahad liggéey bu sell bi mu fi nekkee woon itamit ba léegi ma ngay wëy. ku dugg mhm. Touba ni jàkk ci li nga xam ne moom la def mhm. ñi ngi ñaan yàlla na yàlla euh, wéyal liggéey boobu ci doomam ji fi nekk insha allah amin jërëjëf suwaay bu nga ñëw ci ñaareelu ponk bi nga xam ni moom la ñu indi tey ñetteelu ponk bi nag ma di ko jox rek euh, Sa Ndiogou jëm ci euh, li nga xam ni moom mooy mbirum jàmbaar dëgg du xuloo du xeex lay doon koo xamante ni day doon kuy muñ ndax nag ku dul xuloo ku dul xeex doo def mukk luñ lay yeddee mu mel ni nag kàddu la goo xamante ni bu ko ñëpp sàlloo rek rawatina ñi nga xam te ni ñooñu bokk jiite lépp dina jaar yoon sànjoogu waaw xam nga xuloo xeex boobu sax hmm. day wàññi njàmbaar hmm. parce que day tax sax la nga war a def hmm. boo deful ndànk doo ko def euh, Serigne Abdoulaye li nga xamante ne bii wax na ko macha allah xam nga li ëpp solo mais xoolal xoolal li mu wax maanaam yow mi nekk di naxe sax ma nga lay wax ne la fa ñu jëm moom naxe amu fa kon fii moom boo yeboo teel koo dakkal maanaam mhm. ma ngi lay préparer sax sa ëllëg mhm. parce foofu moom amul nax parce que fa lañ jëm mhm. alaakulea parce que bu nee la ci kaw suuf mën naan fi nga ko mënee waaye ci biir mënta ne te yow ci biir nga mujj di jëm boo yeboo kon teel a waajal sa bopp kon bi nga nekkee fii bañ a jéem a nax kenn mhm. ba boo yeggee fële mhm. nga xamante ni doo am problème te xam nga ni fële moom yëf yëpp leer na mhm. kumpa amu fa comme ni Cheikh Bara <laughs> expliqué sànq kumpa amu fa waaw Cheikh Bara dégg naa ko mu wax ci Bob Marley euh, ci li mu wax na on peut tromper une partie du peuple pendant mais pas tout le temps. mu mhm. nekk loo xamante ni bii lu am solo la. loo xamante ni bii parce que li mu doon wax donc bay ñëw mooy la préparation yi bu mi ngi lay cité di la nommer ci. Euh, waykat yi nga waxoon muy wax ji nga xamante ni moom nga waxoon parce que loolu gis nga wax ji bi mu ko indee fii rek mhm. dafay nekk loo xamante ni xam-xam la wax ji xam-xam la boo xamante ni mhm. bi euh, du xeewi parce que à chaque fois nit ñi mën nañ ci jariñ donc tamit leneen li nga xamante ni bi euh, moom la sama bi expliqué jëm ci li nga xamante ni bi sëñ def na ko ca Touba. Mhm. parce que am na yu bari yoo xamante ni bii. Mhm. nit ñi daan nañ ko raatale bëgg koo boolee ci biir wan na leen ne lii bokku ci. Mhm. na fi jóge dem fële. comprendre nga génne yenn ñu bari ñoo xam ne ay tappalekat lañu woon ak di créer ay kii. waaw fi kiiwul gars yi di ko jéem a kii naan ah waaw dëkkub sëñ tubaab bi ñu indi ay xaj mu ne xaj yi mm-hmm. seen moroomi xaj dañoo leen fi indi <laughs> xam nga gis nga to xoolal tontu xoolal uh-huh. tontu bu leer boobu bi moom la moom la moom la leen tontu rek que ni ñi nga xamante ni bi nekk nañ ki loolu lañ nit ñooñu lañ. donc mhm. il faut que ñu raxas leen génn leen dëkk ba. Mhm. mu nekk loo xamante ni bi lu am solo la. Mhm. Eh, ñu ngi dellu di am mbégte di dellu di ziar di di ko ñaanal sunu boroom yàlla na dolli ay leeram. di wax ni ñu ngi ziar bu baax a baax Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad. Mm. di ko ñaanal Mbàkke wi mu yàgg fi lool te ànd ak wér. alhamdulilah vraiment kontaan nañ. jërëjëf Sandiogou ajaratu kàddu yaa ngi noonu déglu nga ko mu mel ni nag Adja fi muy ñëwee ak yow mooy suñu mag ñi ak fi ñu toll mm-hmm. moom la ñuy wax ak euh, lii am ci charme bi poésie la d'abord mm-hmm. mais poésie la buy éveillé ñi nga xam te ni ñoom ñooy euh, population bi tey jii tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy bindkat yi am nañu part ci côté boobu waaw comme li ñu wax rek xam nga dañuy faral di wax naan Njaga Mbay dafa ni way wu diglewul yeetewul day nekk ay nax mais wax aussi wax yu mm-hmm. mag ñi mm-hmm. dañuy yeete di digle di di tere. di mhm. indi lenn loo xamante ni ñun buñ ko xoolee ci ñoom duñu réer. Mhm. muy loo xamante ni aussi jamono jii ñu toll. Mhm. Euh, naafeq gi dafa bari. parce que ñetti baat yi nga wax nii. bokk na ci naafeq gi bari na. day nekk actualité. actualité saa yu ñëw parce que nit ñi léegi dem nañ ba seen le temps day baax ñu indi seen kàddu yi nga xamante ni dañ ciy naq dañ ciy euh, yeewaat nit ñi di leen ci delloo si gis nga Fatima valeur. valeur dañ koy wax ñu bari. mais gëmuñu ko. Mm, mm. donc ñii ñii bu nu bu ñu bu ñu rabaatoroon ci ñoom li ñuy jàngale. Mm-hmm. du ñu réer. c'est vrai li ma xalaat. dëgg la ajaratu jërëjëf mu ngi mel ni kàddu yooyu. waaw nga tuuti rek ma doole ci boo xoolee ci côté xam-xam li sëriñ Abdul Ahad liggéey. Mm-hmm. tey boo demoon ba màkkatal ma karam nga bind ab ka ka ab lettre. Mm-hmm. ni ni ni daaray kaamil la jëm. Touba la jëm. daaray kaamil sëriñ Abdul Ahad Mbacke. moo ci liggéey lu ama am solo. nga xam ni mboolem xeetu xam-xam boo soxla. ak boo demee nga fekk la ci daaray ba ci téere xasida yi nit ñi di jàng ñi jàngul arab bu ñu demee ci wàllu français tey béti bu ko neexoon mbooleem téere bu mu bëgg ci yoonu murit su demee bu mënee lire français da koy kii grâce à Serigne Abdoul Ahad Mbacké ci liggéey bu am solo bi nga xam ne koy jëloon teg ko ci loxol Serigne Sambay mhm. ci traduction mhm. ci liggéey bu am solo bi nga xam ne tey murit fu mu nekk ci bitim réew mhm. fu mu nekk ci àddina bi mën a jël xasida lire ko ci lurut ci na ko sant Serigne Abdoul Ahad Mbacké parce que moo ko def loo woon Serigne Sam Mbaye allah suwaay bu mu ngi noonu kon kàddu yooyu nga xam ne euh, a mm. ñoom ñooy poètes yi ak ñii di faral di bind waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy waykat yi mm. parce que du fépp la nit ñi di support yëpp la nit ñi di utiliser donc kon mu ngi noonu kàddu yi nga xam ne moom la fësal bi ci mujj dañu mujjal ci point bu mujj bi rek mm. actualité la ndax mer ku ku dul euh, ku ko xam ne moom mooy mer du xuloo du xeex waaye du def bu fekkee da nga safoo muñ rek doo def mu ko ñu lay yeddee mooy li xew jamono ji grandeur la oui grandeur la dafa metti nag neexul grandeur la neexul ah hmm. Hmm. ñàkk mooy xaw ma nu nga koy waxee ci tubaab ñàkk mooy lu lay wër loo xam ne dalaa wër voilà benn forteresse nee na maanaam kenn mënta jóge léegi damay bëgg ñi may seetaan xam ko boo ko waxee nit ñi duñ xam non non nit ñi duñ xam li ngay wax <laughs> nee na maanaam saa boo saa boo demee ci biir ñag bi mhm. nee na yàlla aar na la mhm. waaye nee na mën a buñ boo saa buñ la tooñee mhm. nga génn dem di fayu ji maanaam mhm. ñag bi yaa ci yàkkarte yaa ci dindi aw yoon mhm. dem fayu ji nee na ku lay tooñati foofa lay jaar foofa lay jaar parce que euh, jaar <laughs> kon loolu lañ fi indi woon tey jaajaratu euh, di jaajëfal ñëpp ñi nga xam te ni ñoom ñoo ci jàpp Alioune Diop ci euh, montage Oustaz Malick aussi ñu koy jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. mais également kii di Barak Mbaye sëñ Alioune Keita ñoom ñëpp ñoom ñoo ci jàpp ba mu yemb kon loolu lañu fi indi woon tey jii ci kàddu mag ñi di leen jox di daje baneen alxamis incha allah ak beneen mag. d'accord incha allahu rabbi yaayu imaam yi li ngay indi na solo ñu dem jëli pajum cosaan. ayca mi ngi noonu Alaaji merci Ajara